alhamdulillahi axirun bila nihaaya alhamdulillahi hamdan kasiran tayiban mubarakan fii di sant suñ boroom subhaanahu wa taala bu baax a baax ci kàttan gim ñu taw feexale bañ mën a ñëwaat ci jotaay bii jotaay bi nga xam ni waxtu yi lañ koy amal ci jamono bu ne inchaa allahu taala di sant suñ boroom bu baax a baax tey nag ñu ñëwoon ci njariñal xam-xamu asraar ak biir njariñ xam-xamu asraar laaye biir gi ci doomu aadama war a def ak lan mooy jikko yu boroom xam-xamu asraar bala ñoo ci njariñal asraar jikko yu boroom xam-xamu dafa war a doon ku jikkowoo jikko yu boroom xam-xam jikkowoo ak sell tey saxoo laab doon koo xam ni itam day yaatu day dëddu àdduna day jublu boroomam day bàyyi mbiri àddina doon koo xam ne day am kersa ndax kersa bu ko ba ñàkk ci doomu aadama rek kooku deseetul dara boroom xam-xamu ashraar itam day baaxoo muy saxoo laab ci jamono june di saxoo laab itam ci waxtu wu ne loolu itam da ciy am solo lool ndax xam-xamu ashraar daa mat a fonk te it daa yaatal ndax ñëpp defoon ni ñëpp defoon rek xëy na danam yaatu gi mën naa bañ a demee nii ndax bi gàddaay gi tolloo ci juróom-ñaari téeméeri at ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la wàlli yi ak xut bi daje ca màkka ñu ni dañuy gëstu wenn tur yàlla wu mag a mag ni dañuy gëstu wenn tur yàlla woo xam ni tur yàlla wu mag la woo xam ni moom la suñu borom joxoon sayiduna muhammad keroog la ko mbooleem xutbiya ak wàlli ya bind ñenn ñu tudde woon ko kanzul kunuuz yi ñenn ñu tudde woon ko kanzul maxzuun yi ñenn ñu tudde woon ko sirrul masuun yi ñenn ñu tudde woon ko ismullahi a'zam foofu sax bala ñoo jàll ñu leeral ñu leeral fi ni ismullahi ashxar moom amut suñ borom daraam daan dawut kon bu ñu ne ismullahi a'zam nit ki bu mu yaakaar ni wenn tur woowu ñu wax rek mooy ismullahi a'zam suñ borom mbooleem turam yu sell yu mag yépp rek ismullahi a'zam la suñ borom daraam tuutut ndax koo xam ne lu dul jëmmam jëfam la lu dul moom amoon na ay jamono amul moo ko amal kon kooku daraam tuutut loolu mat na cee bàyyi xel bu baax a baax liñ ciy dolli itam mooy am nañu ko tudde woon sirul masuun am nañu ko tudde woon mafatihul kunuzi am na ñu ko tudde woon kanzul kunuzi nga xam ni loolu moom lañ doon wër nga xam ni euh, xam njariñ lu ci ne ak ñàkkoon a topp euh, di gëstu moo waraloon ñu fàtte ko ñoom ba tax ñu jóg wutiwaat ko ba am ko ku ne tudde ko loolu nag bu dee ci wolof ñu dañ ko tudde woon bi nga xam ni day ñoŋale ñu tudde ko koom bi nga xam ni mu indi koom ñu tudde ko euh, koom mi nga xam ni mu ubbi bunti mbégte yëpp muy lu am am solo loo xam ni euh, mat nay bàyyi xel bu baax a baax ndax boo seetloo ab jullit war nay bàyyi xel fu mu toll ni muy def ba mucc ci àddina war nay bàyyi xel fu mu toll ni muy def ba ba suñu borom dimbali ko ci mbiri àddina yi lu baree bari ba suñu borom defal ko ci tawféex njëlbeenu jotaay bi nag ñu bëggoon a ñëw ci lenn loo xam ni baax na lool ci koo xam ni dafa yore faru rab ñu koy wax faru rab nga xam ni lu ci ëpp mën na dal jigéen mën na dal itam góor ba lu baree bari mën a yàqu ci ay yitteem loolu bëgg nañ cee ñëw tey ci njànglin wu am am solo ndax képp koo xam ni faru rab daray faral di yàqal ba tey dangay wut da wut ganaar ganaar yi ñu miin ñu koy wax ginaaru àll buy wut ginaar yi nga xam ni ginaar yu pëndoos la muy élevage yooyu da wut séq gu weex baa gu xonq lottal ko defar ko fob ca ndawal ga lu néew def ko ci fourne teg ko muy tàkk bam ñor noonu noonu mu lay tiime di solu nga mel ni ku kuy xaru ba mu yàgg boo ko defee rek ba mu yàgg lool nga jël ndawal googu daal di koy lekk ñaare ñaari fiq lay doon benn boroom xam-xam bu mag bu yéeme bu tudd acheikhu Zakaria moo ko leeral nee na loolu dana faj ku jàpp dana faj ku rab jàpp muy daanu moo xam jàpp gi la jàpp daa tax bu dee jigéen a mënoo am jëkkër moo xam jàpp gim la jàpp dalay yàqal sa mbiri àddina moo xam jàpp gim la jàpp day dog ci sa bëgg-bëgg yu baree bari muy gantal ba doo ca am na ko bëggee te itam beneen bi am na ñooñ sax faru rab du ko doon waaye li muy doon mooy euh, day doon loo xam ni xëy na sababu su mbindeef la mën na doon dogalub suñu borom ba ay yitteem yu baree bari mën a tënku mën a mën a mën a gàtt ba ni mu ko bëggee du ni amee loolu nag ku ko yàlla na too day fexe ba bind suratul fiil yi bu ko ubbee jëmmi saar wi juróom-ñeenti miim mi ngi ci nga xam ni alquran juróom-ñeenti aaya yi ci ñëw ci tabaaraka juróom-ñeent la li ko commencé ci tabaarakallahu rabbul alamin fa tabaarakallahu adana alxaaliqin tabaraka allazi nazala alfurqan tabaraka allazi insaa tabaraka allazi jaala fi samaai burujan wa tabaraka allazi lahu mulku samawat fa tabaraka allahu rabbul alamin tabaraka allahu rabbul alamin moo jiitu woon waaye fa tabaraka allahu rabbul alamin day ñëwaat ci biir nga xam ni lii différence bi mooy fagi ak kese la ndax lee fa tabaraka allahu bu mujj bi waaye bu njëkk bi tabaraka allahu la tabaaraka tabaarakal tabaarakasmu rabbika dil jalaali wal ikram ak tabaarakallazi bi yadihi lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir bu ci ne rek ila axiriha ba ca mujjug aaya ba loolu itam képp koo xam ni danga faral di yëg ak doyadi ci sa yaram moo xam sabab la bu bàyyi ci mbindeef moo xam loo def ba lu bëree bari ga euh, commencé la dal ngay dund ay tolof tolof yu méttee metti fexeel ba def ko juróom-ñaari juróom-ñeenti xeer yu xonq nga koy booleel lakk ko ba xeer yi mel ni xalu sawara nga jël ko ci tàkk-tàkk bi noonu sotti ko ci biir saafara si sangoo ko loolu ku ko def balaa mat ñaari fan sun borom dana la sa bunt yëpp te itam euh, fitna yooyu nga daa jànkonteel da yëg ni taqalikoo taqalikoo nga ak moom danga yëg ni dañ na ba tey képp koo xam ni itam danga ame gone goo xam ni mënul wax te mu toll ci wax waaye mënul wax da fexe ba wut làmmiñu seko làmmiñ yi boo ko wutee nga togg ko ba mu ñor jox ko ko mu lekk ko bu soobee yàlla fasaase loolu dana daal di dañ dana daal di mën a wax ci kàttanu suñu borom subhanahu wa la ba tey képp koo xam ni itam nag yàlla daa dogal mu am aaju ju rëy rëy ju mu yittewoo te jaaxle ci rawatina mbiri boppam wala mu am lu mu bëgg ko ko xamal xëy na te munta dem ci nit di ko ko leeral day def euh, bu tëddee mu bind baat bi lay bind baat bi juróom benn yoon ci këyit wu weex bind aajoom ginnaaw ba itam mu teg ca allahuma axbir nii euh, daal di wax yaa xabiiru juróom ñeenti téeméer ak ñaar fukk ñaar bu noppee Euh, ngegenoo këyit woowee juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar yaa xabiiru baatu bi yaa xabiiru nag dafa bokk ci turi borom subhaanahu wa taala mu yor maanaam yi ci wolof mooy yow aji dañ kumpa ci lépp te dara ump la te lenn lu ne nga xam nam amee te njëkk muy am sax xam nga ni dana am te yaa ko dogal dogal bàyyi doog a yegg si daa di sollu laab tëdd fu laab ngegenoo ko la nga doon laaj di ko gis ci ay nelaw te doo ci gis lenn looy tiit loolu dimbalul yàlla da ciy feeñ bu baax a baax képp koo xam ni itam dafa am ay feebar wala mu am jafe-jafe jurub doom yooyu yëpp da ciy dugg am na sëriñ bu tudd abo cheikhi abul qasim al qushayri doomam mas naa wopp ba mu jàpp ni euh, amatu ca yaakaar day faatu mu mu tëdd gént euh, feeñu ko daan ni ko wa yasfi suduura qawmin muminin wa shifaun lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil muminin yaxruju min butuuniha sharabun muxtalifun alwaanuhu fihi shifaun linnaas wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahma lil muminina wa ida maridtu fa huwa yasfini qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaun nga xam ni aayu yi yooyu ngay boole xëy na bokkuñ fuñ ne waaye nii ma ko waxee ni nga koy ni nga ko nii defee des na ko naan des na ko takk des na ko sangoo fu laab képp koo xam ni itam yàlla dafa dogal euh, am doom tëla boo ko defee bu soobee suñu borom danga nga daal di am doom te te amin wa mën naa bañ a jafe képp koo xam ni itam danga tiit ci sa bopp xëy na ñàkk ci sa bopp kaaraange ñàkk ci sa bopp ak wóolute xëy na yaakaar ni sababu sababu su mbindeef la wala ñàkk aar sa bopp moo ko waral ba nga tiit ci sa bopp da ngay boole turu xulafa ur rashidon yi Ababacar Omar Ousmane Aliyu nga xam ne boo bindee Ababacar euh, da nga koy da ngay fexe ba mu kaare Ababacar Omar ab rëddam Ousmane ab rëddam Aliou ab rëddam nga fexe ba mu kaare doon ñeent boo noppee Cheikh Ibrahima ibnu Adham bokk na ci wëlli yu màgg ya am na bis mu toog euh, digaloon ko benn ci taalibeem waaye moom sax dafa yëmut ci loolu ndax moom mas na bis am na bis mu romb ak garab garab gi di sàkku ngir mu ràmb ko mu daal di wax taalibe bi ni ko daggal ñetti doom ci garab gi lekk ñaari jox ma benn bi garab ga dafa mel ni lu deewoon daanaka dundatul woon nga xam ni manees manees na ni am na garab fu muy toll yow dootoo ci yaakaar sax ak dund waaye ba ca jëlee ba mu jaaraatee ca garab ga jóge baytul jóge baytul muqaddas garab ga rëy lool gudd lool keroog la mujj rak nga xam ne garab ga weer wu ne ba léegi nii day meññi di mel melokaan wu yéeme kooku nag moom moo wax ni képp koo xam ni doom jafe na la li mu wóor a njëkk a def moo di gëstu bu baax a baax ci boroom xam-xam yi ndax ndax doom jooju ñàkk gi mu ko ñàkk am ba mu yàgg mu taxaw akuk mus akuk ak ndax mus la am doom ak ndax mas mas na am doom bokkunu ki nga xam ni mësta am doom ak ki nga xam ni mas mas na am doom xëy na mën na wuute ci problème moo tax day gëstu ci borom xam-xam yi euh, ba xam tawat la wala rab la wala gàllankoor la goo xam ni saw bus mbindeef la euh, tawat ju la teree am doom mën na bëri lool ndax am na jinne ju tudd saari saariku saariq jinne la wax nañ ni yonent yàlla suleymaan alayhi salaam jigéen ji war a am doom te mu jafe leen am na jigéen ju dul am doom am na góor gu dul am doom loolu itam mat na ciy bàyyi xel am na kook moom yàlla ci boppam ca dogalam moo dogal ni du am doom kooku la ñuy wax jaasir jaasir lañ koy wax ñenn ñi eh, ñenn jigéen ñi dañ mel ni dañoo war a faju walla du ñu am doom jurukaay goo xam ni kuy wëlbatiku la wala jurukaay gu am tawat yooyu yëpp da ciy mat a bàyyi xel waaye lum ci mën a doon rek bu defee lii ma wax nii bu soobee suñu borom mooy loolu ma bindoon foofu mooy ay yooyu ma leeraloon mu commencé ci wayas fi sudóora qawmi muminin ba ci qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaun bu ko defee sun borom subhanahu wa taala dana def loolu yi muy jàmbat ci mbirum doom yàlla dana ko ci suturaal ba mu am ci lim bëgg koo xam ni itam nag yàlla sun borom subhanahu wa taala dafa dogal mu am tiis ak njàqare ci mbir mum dugg wala ci luñ ko def wala ci lu mu rek day fexe ba bind suuratu qurayshin moo di li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlata shitaai wa sayfi falyabudu wa amanahum min xawfin da koy bind juróom-ñaari yoon bu ko bindee juróom yoon teg lii may bëgg a wax allahuma innaka min kulli cheyin wa kullu cheyin xaaifun minka aminni fa bi aminni mimma axaafu innaka ala kulli cheyin qadirun fa innahu yamanu min kulli cheyin képp ko wax lii lépp loo doon dugg ba képp koo doon jëflanteel ba tiit ca yaakaar ni dang nga ca am problème da ca génn ba mel ni musoo caa dugg insha allahu taala mbokk yi xam naa ñu yam fii rek ba beneen yoon insha allahu taala wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin